yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV. Fafa TV incha allah xam naa ni comme laaj bi noonu dañuy laajaar rek. Mhm. mooy ni nga xam ne moom la góor jigéen ñi tamee Sénégal yi nga xam ne dañoo jog pour ne seen diine lii la wax. Mhm. dafa mel tamit ñi nga xam ne ñooy activistes yi. Mhm. Eh, maanaam yor seen xam-xam di faral di teg ay lu leer di ko wane ci dëkk bi nit ñi dafa xam ba ñu bari daal toppaleen ci loola. ñoom itamit dafa mel ni yantaa dañuy faral di daj ay mbir. waaw ñaareel sax nga xam ne ñoom ñoo ñooñu bokk nañ yoon. Mhm. amu yoon benn problème waaye daal dafa mel ni daal intérêt àdduna lañ ko mën a wax wala daal. waaw comme tey ku mel ni Cheikh Omar Diagne ko carrément dañu gis ne li koy attaqué dafay bëri bu dee yaa ngi koy faral di suivre. Mhm. ndax gis nga ne ñu koy attaqué ñu ngi koy attaqué ci dëgg. waaw Cheikh Omar Diagne de euh, yal na ko yàlla gën a dëgëral te bëri nag ndaw ju mel ni moom Cheikh Omar Diagne dañ ko war a ñaanal ndax euh, bokk na ci. ndawi réew mi nga xam ne seen diina ñor na leen comme ndax foo dégg Cheikh Omar Diagne di wax dafay défendre l'islam fee foo dégg Cheikh Omar Diagne di wax dafay dénoncer loo xam ne dafa ñëw pour xajamal l'islam man lii laa xam ci Cheikh Omar Diagne lii laa déglu ci ay discours nit ki nag li ma xam ci moom dégg ko ci moom laay mën a seede ci moom waxam bii nag nga xam ne moom la wax ne jamono bi fi colonialiste yi nekkee li ñuy tuddee AOF muy Afrique occidentale française ñoo daan woora ndoor daan jullee ndoor loolu yaakaar naa Cheikh Omar Diagne waxu ko da ko da koo toxal ci am mbind moo xam ne ñoom ña jiite woon AOF ca jamono yooyu ñëw ko bind yaxal ko mucc ko fi te itam euh, wax ne da leen koo imposé woon bu la neexee mën nga taxaw ne ko déedéet Cheikh Omar kenn imposé wut ko woon sunu mag ñi mu ngi tollook nag administration la woon boo xam ne moom l'imposition moo ko fi indi woon loolu moom ñu ñëpp bulewuñ ko bundu xataal doomu aadama yi moo ko fi indi woon loolu kenn umpalewut ko tooñ doomu aadama yi moo leen fi indi woon ak not leen loolu moom kenn umpalewut ko la leen tax a bàyyi ko France ba fii noteel la ak bundu xataal ak jaay doole ak ëpp doole ñaata daara lañ lakk est-ce que loola du noteel est-ce que loola du bu ndax du du tooñeel ah kay tooñeel la noteel la bunduxataal la euh, ñaata sëriñ daara lañ rey ndax loolu du tooñeel ndax loolu du bunduxataal ndax loolu du noteel ah kay tooñeel la noteel la bunduxataal la noonu ñu leen doon reyee noonu ñu doon lakkee seen daara ya waaye it ñaata kilifa lañ fi eh, exporté génnee leen seeni kër teqale leen ak seeni njaboot ndax loola du noteel ndax loola du bunduxataal ndax loola du tooñaange aha tooñaange la tubaab bi li ko fi indi woon lépp tooñaange la noteel la jaay doole la bunduxataal la mag moo dégg ci mag ñu baax ñi ñu ne tubaab ba def na ko nangam génnee na ko réew mi comme ku mel ni Cheikh Abdoulaye Niass nii tey ci dëkk bi ñuy waxee muy Kaolack wala ku mel ne Cheikh Ahmad Bamba ma nga xam ne moom itam rahimahullah taala ñoom ñëpp yal na yàlla yërëm leen génnee woon nañ ko réew mi ba mu dem Gabon dem fi Sarsara loolu yëpp ndax nekkutoon tooñeel ndax nekkutoon bunduxataal ah kay fa la tooñeel mën a yem kon su fekkente ne ñoom ñëw nañu tooñ ñu ci yooyu yëpp yilif ñu ci kaw noteel ak bunduxataal dem ba naan ñu weer wi feeñ na te ñun wóoluwuñ leen gëmuñ leen ñun wóoluwuñ tubaab bi ndax ki ñëw di la not di lakk say daara bu le naa weer wa feeñ na mën nga ca am dut mën nga ca am sikki sàkka bu fekkee ne yow xam nga ne sama sëriñ kat daa wu ko tënku jarul coow jarul xuloo mën nga ko wax rek ne ko ah Cheikh Omar par téléphone par téléphone et par respect loolu nga wax kat am na loo ci wumpule nga mu ne la lan la nga ne ko man sama sëriñ bu jotaan eh, message bi jotee ko ci l'administration coloniale daawul ko doxal ndax wóoluwut leen woon ndax gëmut leen woon li jarul coow te itam nag wax dëgg yàlla eh, di ci coow ba di ci saaga wanteeg ay l'islam daal moomul saaga lislaam moomul làmmiñ bu ñaaw l'islam duñ ko doxalee ci mer surtout nag loo xam ne jaru ko woo ko ne ko sama sëriñ bokkut ci woon saa yuñ mosaan a joxe ndigal loolu moom da ko daan lànk moo ki taalibeem coow du am réseaux sociaux yi duñ ci jot ba di ko ñaawal ba ubbi nag bunt boo xam ne tey dem nañ bay menace loolu dama ne duul yoonu Sëriñ Tuubaa man damay damay man toujours damay wax ne damaa sol sama robb nekkal fii ñëpp lislaam laa fi nekkal ñëpp lañ fi war a nekkal yéen ñi nga xam ne yéenay njabootu gaa yu baax yi góor góorlu leen te xam ne lépp lu ngeen di wax ci ñoom ñoom am na nuñ bëggoon ngeen waxee ko position de défense bu ngeen di jël ci ñoom ñoom am na nuñ leen joxe woon ñoom mag ñu baax ñooñu ne leen bu ngeen ñuy défendre na ngeen ñu défendre nii man dama yaakaar ne ñun jullit ñi tey pour ñu mën a défendre Cheikh Ahmad Bamba pour ñu mën a défendre Maodo Malick si ñoom Cheikh Abdoulaye ñas et ñoom Bou Kounta Ndiassane ñoom Cheikh euh, Tidiane Dem ca Sokone ñoom Serigne Adi Touré ñoom waa Jaamali ya ñoom waa feneen ak feneen ma ne mag ñooñu buñ leen bëggee défendre ma ne nañ leen défendre ca lañ doon défendre ñoom na fi sariya sax tubaab ba dem na gis nga saaga wi gën a ñaaw ñu saaga ko sunu mag ñi mooy ñu ànd ak ñoom ci diina wëlbatiku xeex lañ doon bëgg ñoom saaga woowu lañ war a lijjanti saaga wi gën a ñaaw mooy ñu joxoñ ñu nañu seenu yonentu lii mu fi indi woon yellut mënta doxalum réew maa maandu gënuy séentu ca layu si te gisuñ ko ci moom saaga gënta ñaaw loolu sunu xuloo foofee la war a jëm sëñ Bamba day eh, ñi koy ñi koy défendre wan na leen yoon am na fu muy waxee ne walxaasilu suufiyu alimun amil bi ilmihi xaqiqatan walam yamil nee na xee yow suufiyu bi boo bëggee xam lan mooy suufiyu fàww nga nekk boroom xam-xam dawal jàngi mënoo nekk ab suufi yu te jànguloo aalimun amil bi ilmihi boo jàngee itam nee na bu ca yem demal nga jëfee sa xam-xam xaqiqatan nag na ko jëfee ca réalité ba bul jéng jëm ndeyjoor ni càmmooy tegal sa tànk ci xam-xam mu teg ci sax ne mumtali al qalbi min al afkaari fa saara saafiyan min al akdaari sa xol ak sa sam xel fees dell ak ay xelaat yu sell waaw ba lépp luy tilim tilimu xol duñ ko gis ci mu mel ni nag dañ ko laaj ne ko waaw loolu moom pour ma mel ko dana jàppandeem ak su ma ko bëggee mel nan laa war a mel mu ne munqatian li rabbihi min al bashar danga naan danga naan dogu naa lépp jëm naa ci sama borom subhanahu wa sama jëf sama bàyyeeg lépp mbindeef taxatul yàlla rek subhanahu wa taala musawiyan diinaara aynin ma dar xàmmeetoo nag ab diinaar li ñuy tuddee tey dollar ak juróomi dërëm xàmmeetoo ko wogg suuf yii lalay soxal du diinaar bi du xaalis bi déedéet bi maanaam dalaa bëgg a won ne la xaalis ak wogg suuf na yamoo fi yow ku yëkkati woon woggu suuf jox la lu la jox tous ku yëkkati téeméeri milliards jox la lu la jox sëñ Bàmba nee na moo ki suuf yi nag leen yemale surtout nag su fekkente ne milliard bii da cee bëgg a jënd sa diina bu ko nangu mu ne nag boo bëggee suuf suufi yu kal ar bi melal ni suuf suuf mooy loo xam ne yurma fawqaha kullu qabih lu bon loo am sànni ko ko potu sàmbur ngay dawal tuuri ko ca suuf sa moo xam nag am ndox la nekk moo moo ca nekk wala ah, dugub juñ fa tuur moo ca nekk ca potu sàmbur ba waaye ca suuf rek ngay tuur loo yàqule dama sànni ca sën ba sën ba suuf la gis nga sën yooyu di suuf si loo am ci loo xam ne bëggatoo ko xool ci sa kër gi ñu ne dawal tuuri ko fa sën ba moom ma ngay jël yooya nga fay sànni ne bëggatoo ko bëggatoo koo xool ndax lan dafa yàqu dafa bon moom mu ngi koy jël di ko liggéeyaat di ko liggéeyaat di ko defaraat ba soppi comme tos nga xëy xëy xool seen ba ne ah moom kat sagar yaag potu sàmbur yi fa tuuroon yëpp soppi na ko tos yow moo ko fa tuuroon yaay dem di ko buubaat di ko yóbbu fan ca sa tool ba di ko defaree sa mbay loo fa ji mu baax si Ahmad Bamba nee na la melal ni suuf mii boo génnee ko suuf yi loolu noo koy doonee mooy luñ la wax ci lu ñaaw nga muñ ko yàlla soppi la ko ay tiyaabu Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu taala anhu keroog ba nga xamee ne waa ji ñëw na ci gàttal ndax ñu ngi bëgg a guddal saaga ko saagawaat ko mu muñ rek yonent bi salaay sallam muñ kontaan ci ñàkk tont tontu mu saagawaat yonent bi salaay sallam gën a muñ mu saagawaat ñetteelu yoon Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu taala anhu daal di tontu yonent bi mer gis nga noonu meree woon ni la sa sëriñ di meree su fekkee ne dañoo saaga e sëriñ walla ñu saaga la yow nga wël wëlbatiku naan ko maa la dàqa saaga ñun yenuy dàqante du saaga ab sëriñ doo ko meral di ko merle ci di ko saagale déedéet moom nekkul woon saagakat sëriñ sëriñ muñkat la woon lii nag waxuma ko ci mbirum Cheikh Ahmad Bamba rek dama ko wax ci mbirum nit ñu baax ñi ñëpp du mbirum nit ñu baax ñi ci senegal rek waaye nit ñu baax ñi ci kaw suuf yépp lii lañ woote mu ne nag yata uhal karimu wala mu suuf am na mbaax gu toll ni loo bëgg moo la koy jox ndox ma moo la koy jox yére yi ngay sol gàncax gañ ko ràbbee moo la ko jox li ngay ñam wi ngay def ci sa biir moo la ko jox waaye nag suuf moomu di dundal ku baax di dundal ku sàggan ñoom ñëpp ci kawam la ñuy defee seen lañuy ñuy def ku baax kii di defee mbaax nga ci kaw suuf ku sàggante yi di defee càggante nga ci kaw suuf yata uhal karimu wala i bu ñëpp di ko jog yi dem te lu baax luñ am ci moom la jógee kon mbokk yi ab suufi yu noonu la war a mel ma tegaat ci ne mbokk yi ab salafiste nii la war a mel ndax amul différence diggante ñaar yi ndax suñ ne suufi yu mooy koo xam ne boroom xam-xam lay doon buy jëfee xam-xamam kooku kay mooy jullit bi moo tax dem na ca ba naan ca guddal ba bañ a guddal ba man yakun kazaka fa huwa suufi nee na ku mel nii daal yaay suufi doo delloo saaga déedéet doo fajee dóor ak xuloo ak xeex déedéet kon mbokk yi nañ leen delluwaat ci njàngale mag ñu baax ñi seen njàngale nag du leen lu dul njàngalem seen kilifa ñoom ñëpp muy njàngalem rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na nag ku mel nii day wax nga dëgg suufi yu nga de aw laa fasu daawa alal maarufi nee na boo melul nii nag da ngay woote rek kon daal mag ñi nañ leen xeexle pour l'islam dellu si waat fee ca pale ba ñun loolu moo nekk suñu combat mag ñi nañ leen xeexle pour jullit ñi booloo waat nekk wenn say ñun loolu mooy sunu combat mag ñi nañ leen xeexle pour jullit ñi ñoom ñëpp takkatoo seen xol yi ak mbokkoo ne ca ñuy laaxante biir ci seen biir ci nam gën a rafetee kuy xeexle mag ñi na leen xeexle ci loolu bu ko defee lii moom lañuy wax suñ bopp ci suñ bopp lañ koy njëkk a jëmale di ko jëmale nag ci képp koo xam ne daf ne damaa askanoo ci kenn ci mag ñu baax ñii nga xam ne ñoom ñëpp ci rasulullahi lañ askanoo sallallahu alayhi wa sallam bëggante soppante bañ a xajal seytaane ci suñ biir bu ko defee kon euh, baatub imposition boobu nga xam ne moo jur coow lii lépp jaru ko ñun ñëpp la tubaab bi imposé lii ñuy dund tey imposé ko suñuy sëriñ lii ñuy dund neexuñu lii ñuy dund neexul si Ahmad Bamba neexul Maodo Malick si neexul menn mag mu baax mi fi nekk waaye nag day tax day wane ne gërëm nañ ko déedéet gërëmuñ ko ànduñ ci neexuñu moo tax ñun ñëpp ñuy milité ci suñuy jàkka ak suñuy xutba ak suñuy discours di woowaat njaboot gi pour lan lii nga xam ne neexuñu nañ ko fi génne jërëjëf man loolu rek laa amoon lu may wax ci mbirum Cheikh Oumar Diagne ak ñi nga xam ne ñu ngi koy saaga ak di ko menacé. incha allah kàddu gu mujj. Euh, sunu kàddu gu mujj nag mooy combat bi day door a commencé euh, journée 23 bii nga xam ne jàll nañ ko ak jàmm. alhamdulilahi rabbil alamin a jullit ñépp génn xàmmewuñu kii lii la wala kële lale la dañ ne jullit ña ñoo génn te li ñu ci gën a neex gis nañ ci sax ñu dul ay jullit génn ànd ak ñoom ñii nga xam ne ay chrétien la ñu génn ànd ak ñoom jël seen kàddu wane ne lii ànduñ ci dama ne loolu noonu rek la war a demee ànd boobu nag nga xam ne moom alhamdulilah mooy turu sax mbooloo mi ndax dañ ne ànd sàmm jikko yi muy ñetti baat ànd mooy dawar mooy mën ànd ànd moo war a jiitu mooy base bi ñun ñëpp ñu ànd nekk benn mbooloo nekk benn xol nañu lislaam takkee liimaan takkee ñu lislaam nag bu ñu xasee takkee lislaam boobu ak imaan boobu moo ñuy takkee ak ñi nga xam ne bokku ñoom ñoom sax kii na dañ leen di ëmbal ma laa yanhaakum allahu an allazina lam yuqaatilukum fi ddin wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum nee na ñii nga xam ne bokk leen ak ñoom diina yàlla terewut leen mukk ngeen def ci njekk ci ñoom déedéet wa tuqsitu ilayhim yàlla terewut leen mukk ngeen maandu seen diggante ak ñoom déedéet terewut ñu ko de def ñu ko digal ndax inna allaha yuhibbul muqsitin ko defee nag kon ànd bii nga xam ne tey sénégalais yëpp jóg nañu wane ko keroog le 23 mai dama naan day door a commencé te góor jigéen ñi kat war nañ ñu ne ñoom day ànd nañ ndax ndeke ñu doon ñaawlu fii naan waru fee am ci Sénégal seen mbokk ya ca France nga jóg naan ah kay na fi am yéen ñu doon ko ñaawlu seen tànk dootul tegee France di ko sàkku ci seenu gouvernement ma ne kon combat bi day door a commencé. xàjjat la gi nga xam ne it ñu ngi ko bëgg a commencé naan ah kay xalif généro ya am na ñu ci àndut am na ñu signé wut pétition bi dañ ko wax nañ wax yan xalif ñoo ñoo ñàkk signé pétition bi pétition bi nag dama ne nañ ko gën a jëmbal askan wi nañ gën a signé pétition bi waaye itam leader yi nañ leen gën a soññ ci ñu signé pétition bi comme ni nu gisee euh, Cheikh Bamba Dièye ak euh, Serigne Mamour Diallo la de député bi nekk assemblée national yaakaar na Mamour Diallo lañ koy wax ak ni nu gisee ku mel ni kii euh, <coughs> Ousmane Sonko keroog ci le 23 mais bi wane na ne ñu ngi ñaawlu ngóor jigéen ci réew mi yeneen leader yëpp nañ wane seen bopp signé pétition boobu ñu mën a xam ne ñii ñoo fi nekkal askan wi. ñi nga xam ne nag bu ñu demee ba ca cëppaandooy ga signé wuñ pétition bi sàkk wuñ ci gouvernement bi ñu xam nekk maanaam pour ñu criminaliser ngóor jigéen. non seulement pour ñu criminaliser ngóor jigéen waaye ndëgal yi nga xam ne yëpp ngoor jigéen amoon na ko ndëgal mooy fi ngay teg sa tànk ndëgal yooyu yëpp nga xam ne ngóor jigéen fa la waroon a teg tànkam pour mën a law ci réew mi moo xam moom lañuy ñuy tuddee éducation sexuelle biñ bëgg a tasaare ci suñuy jàng suñuy lekkool dama ne yooyu ak boppam muy ndëgal yooyu nañ ko njëkk a dindi d'abord doora nag tëral loi boo xam ne dañuy ànd ne lii réew mee ko bëggut nañu ko criminaliser teg ca sax li nga xam ne moom la góor jigéen ñee ca France wax mooy mboolem kuy dëgëral ngóor jigéen comme nee nañ suñ tànk ci kilifa yi buñ jamati France ñoom it seen tànk bu mu fi jamati ñu dañ koy ko defee nag ñu ngi ñaanal xeet wi ne nañ gën a bennoo yal nañ gën a nekk wenn say loolu nga xam ne seen xalif généraux yi ak seen njiit yi nga xam ne ñoo nekk ñoo jiite mouvement islamique yi kilifa yooyu koo ci ànd boo ci boo xoolee sa bopp te di jullit faaw rek ci ñoom ñii ak nga am ci ko àndal ci ne kii maag moom ñoo bokk combat bi ñoom ñëpp nag nañ góorgóorlu ñoom itam fexe amal benn coordination muy ànd sàmm jikko yi bu ànd amulkat sàmm jikko yi du mën a am de bu ñu dara xajale ñun ñëpp bokk luñ bëgg ñun ñëpp bokk fuñ jëm kon ànd gi na gën a dëgër ndax sàmm gii nuy sàmm suñuy jikko gën a ñoŋ gën a taxaw nag ci pétition yi nañ ko gën a lawal nañ ko gën a yaatal ne ko ñëpp signé yal na yàlla may mbooloo moomu nga xam ne ñoo bëgg ànd pour sàmm jikko yi ci réew mi yal na yàlla dooleel leen yokk leen ndam hasa waaxiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin yal na yàlla jàmmal ñëpp jox ñëpp kàttan luñ mën a taxawale leen lislaam ay bëgg-bëggam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV. Fafa TV.